waaw euh, situation district bi comme ngeen ko gisee tey euh, préfet dafa woote daje euh, bi nga xamante dafa ëmb ñëpp ñi nga xamante ne ñuy yëngatu ci wàllu xeexu mbas mi parce que gis nañu ne kat fan yi wax dëgg yàlla Thiès ñu ngi gën am ay cas naam yenn saa si communiqué bi du ngeen gis cas communautaire mais cas contact yi am nañ fi am na ñaari fan yoo xamante ni ci bés ay bés bi la ñuy génn wàññi nañ fi lu mot fanweeri cas donc pour wane ne jàngoro jaa ngi ci gox yi nañu gën a góorgóorlu gën a gën a euh, taxaw nekk kenn nit pour xeex jàngoro yi donc fi ñu toll nii ba parce que ñu tàmbaleeg léegi wàññi nañ fi juróom-ñett fukki cas ak juróom-ñeent au niveau du district sanitaire de Thiès. 14 euh, cas communautaires je me trompe pas je crois que noonu la 14 cas communautaires yi des nekk ay contact ak yenn saa yi aussi ay cas yoo xamante ni dañu koy joxe depuis Dakar parce que da ngay gis euh, ku xamante ni dafa positif Dakar fekk fii la dëkk ñu comptabiliser ko. ci suñu da ngeen commencé loof jumtukaay yi wàññeeku wala matuwaay yi ñoo efficace Euh, déedéet mën nañu ne sax dañu efficace parce que yaakaar naa ne li ñu def suñ ko defuloon kon fi mu toll nii kenn waxatu dañuy wax ay ñaar téeméeri ak ñetti téeméer donc jàpp naa ne man de jàppoon naa ne du ñu du dinañu weesu fii ñu toll mais yàlla def na wax fa dëgg yàlla am na mais taxul mu demee noonu mais nañu gën a góorgóorlu bu ñu ko fi bëggee jëlee mais terewul ne. suñu mesure efficace nañ ko waaye bu ñu ko gënee dooleel ñu gën a efficace ba dootuñu am cas. a jàppale bi ci lépp ci wàllu finance ci wàllu matériel ci wàllu lépp wax fa dëgg yàlla sooxe na trop mais dañuy euh, góorgóorlu ak suñu partenaire ak ñu fi nekkal collectivités territoriales yi ñuy jàppale si lu bare bare mais nag quand soxla nañu encore ay moyens humains ay moyens financiers ak euh, équipement de protection individuelle. mooy ñu xam ne jàngoro baa ngi fi di law. jarul ñuy wax quartier sangam ak quartier sangam dëddi kay xanaa quartier yooyu la ñu gisagu parce que bu ñu jëkkee jëkk gis benn cas communautaire si benn quartier ñu dem def suñuy enquête boo gis cas contact gis mu wàll fa lu mot fukk ak juróom-ñett wala fanweer donc jàngoro baa ngi ci gox goxaat jàngaro baa ngi si dëkk bi nañu gën a farlu taxaw nekk kenn respecté mesure barrière yi di takk masque képp kuy génn na nga takk masque da ngay gis ñoo xam ne dañuy takkee masque day daw sa yaram. masque dafa war a muur sa bakkan sa gémmiñ booy wax bu ko dindi loolu mooy njëriñu masque bi ñu respecter distance sociale bi wala distance physique boo demee ci barab yi nga xamante ni foofu la nit ñi daje da ngay xaw a yéem nit ñi day mel ni dañu bàyyi di respect distance physique boobu loolu dafa am solo trop te ñu moytu dox bi nga xamante ni amul njëriñ ku fekkente ni amuloo soxla ci biti toogal sa kër ñu moytu rassemblement yi respecter distance physique yi di takk masque yi di faral di raxasu régulièrement mesures yooyu daal ñoom ñoo am te ñoom rek ñoo efficace ci àdduna bi yëpp ay jàngat yu leer nañ ñi wane nañ ne loolu bu ko askan jàppoo dinañ ko dinañ jëlee mbas mi seen gox waaye bu sooxee rek yëf yéen mën na faa yàgg te bu fi yàggee indi gàllankoor yu bare bare ci wàllu santé mais yeneen secteurs yi également de développement communautaire yi ñu ci du Thiès leen ne la tey non du caagee nu gëm ak kii peut-être ay comptabilisation la mun na am euh, mais euh, ñu ngi leen déglu mais yaakaar naa ne loolu du ay kaawu Thiès parce que bërki démb de ñu ngi euh, juróom-ñaari prélèvement te ay cas contact la nga xam naa ne ci compilation bi yenn saa yi mooy amee erreur yooyu mais de cas communautaires yooyu Euh, yaakaar ñu mu nekk biir Thiès mais ñu ngi ci euh, ñu ngi ci euh, gëstu ak ministère la santé et de l'action sociale